asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Tiwaawan ñoo ngi fii ci dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick bu sell bi radiyallahu taala anhu ñoo ngi nuyu xalif général bi di nuyu kullu ku fi kilifa diine di nuyu sama responsable moral sama sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Maktub la syndicalisme mu ñëwoon fii di interviewé Sidi Lamine bu baax bi si événement yi fi am ànd ak suñu journaliste ci émission ñaxtu bi la syndicalisme voilà donc euh, man Sidi Lamine Ndoye laa tudd man maay secrétaire général syndicat unique des travailleurs du Sénégal SUTSAS di en même temps euh, le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs mais en même temps aussi nekk le représentant du personnel au conseil d'administration. bon en fait euh, incendie bu njëkk bi surtout la ñuy wax quoi. bi si des taxu ko graaw noonu mais bo dinañ ci del si bu onze bébé yi dañuy doon lu tiis loo xamante ni ba léegi mi ngi ci suñu xol yi euh, mu mu am ci période boo xamante ni nii hôpital bi mu ngi nekkoon ci ay performance yu baax di liggéey liggéey bu am solo mu daal aussi ci service bi gën a baax service bi gën a performant mais balaa boobu rek heure bu ñu ciy waxee rek dañuy jiital toujours ñaan jëmale ko ci sunu bébé yooyu. sunu nourrisson yooyu di am aussi vraiment tiis ci seen i waajur di leen massow di leen wax si gil ndigaale encore une fois tiis bi nag moom bi mu ñëwee euh, metti na Sénégal yëpp ah parce que tu sais ñun euh, africains yi <clears throat> dañoo fonk njaboot ci ñi mu daal surtout ñi nga xamante ni alors ñoom c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des femmes les sages-femmes ñoom ñoo nekkoon ci garde bi ku xam sage-femme xam relation bu mu am ak bébé sage femme yàlla daf ko may lu am solo tey ji nii soo ëmbee sa doom juróom-ñeenti weer comme ni ñu koy waxee buy buy juddu sage femme moo la koy njëkk gis sage bi moo la koy njëkk a fop moo la koy njëkk sang moo la koy njëkk solo solo solo solo solol premier équipement maanaam muur ko ak serviette après yow yaa ji lañ la koy indil def ci parfum jox la ko. kooku xam nga ku ko gën a jige bébé amul yow sa doom ji nga jur laa la wax loolu lépp sage femme moo koy def li ñu metti mooy que sage femme yooyu nga xamante ni kenn ki am na doom ju mu bàyyi woon këram ñëw fii di garder doomu jàmbur ñu tëj ko <clears throat> dégg nga baax li ma la wax mooy awa am na doom yoo xam ni bébé la mu bàyyi ko këram ñëw liggéey si ñu jàpp ko tëj ni ñoom daal ay coupable lañu loolu moo ñu gën a metti dafa am ñaari naqar naqaru xale yi gaañu mais naqaru aussi xale yi ñu jàpp ay jigéen euh, hôpital bi yëpp la affecté ñëpp la metti parce que pour ñun ñoom defuñu dara. responsabilité bi suñ koy xool nañ xool kan mooy tabax hôpital hôpital kenn rek moo am mission tabax ko mooy mooy l'État tey jii même boo amoon ay milliards booy tabax sa hôpital da ngay wut autorisation clinique état moo koy signé kan moo kan moo fay ki tabax hôpital état kan moo def branchement yi ka mu jël ka mu jël nee nañ AGETIP la woon AGETIP sous-traité ko yéen a ngi nii bu leen neexee ngeen filmer ndax Tivaouane mérité na am lii comme hôpital dëkku Seydi Hadji Malick si kilifa yi diine yi fi toog seeni njaboot des fois mu ñëw. ndaxte Tivaouane lii mérité na ko <clears throat> yéen gis ni trans kii kii yaa ngi nii ngeen di gis à l'œil nu comme ça dañoo gëm ni rek bu doon hôpital bu bees affaire incendie bi du fi am bu doon hôpital yu bees yi ñu tabax ci dëkk yi incendie yi parce que hôpital yi ni ñu koy tabaxee incendie mënu fa am day am détecteur de fumée détecteur de chaleur sirène buy sone alors yooyu yëpp dalay dalay alerte mais fii ah au début nekkul woon sax fu prévoir woon pour hôpital dañ ko prévoir woon pour centre de santé bu ndaw ñu dem ba yàgg sëñ Abdou Aziz Al Amin mébétu population bi ñu demandé ko ci jamono Ablaye Wade ñu def ko hôpital mais parewul pour nekk hôpital donc euh, raison yi tax <clears throat> lakk gi am nee nañ court circuit la court circuit defe naa sage-femme mënu ci dara quoi ku sa kër am court circuit nooy def da ngay daw woo sapeur pompier sage femme bi moom est-ce que sapeur pompier la encore que sapeur pompier pour mu fay lakk day am équipement maanaam day sol ay anti mu yëre yooyu muy sol lu lakk <coughs> sol ay gants sol ay bot sol masque sol casque sage-femme bi est-ce que moom buy liggéey si dañ koy jox sage-femme yaa ngi nii di leen rom kenn ngeen ci gis mu mu sol solu solu sapeur pompier et puis tout seen role sax en fait ñuy fay ay taal ñoom li ñu war a def mooy fay taal war a def faj nit mais fa pas fay ay taal quand même. ñu fa woon xam nga polémique bu gars yi entretenir la euh, di désinformer population bi dégg lu baax li ma la wax ñoom ñu ngi fa woon gis nga gis nga fii nii ñoom fii lañ njëkkoon nekk waaw pédiatrie bi moo ne woon nii fii ngay gis nii moo nekkoon pédiatrie bi après la leen tuxal def ko pôle mère enfant ñu boole fa maternité ak euh, pédiatrie muy dox sax ñoom ñu ngi woon soo demee salle nag salle bële mooy néonat fii nii mooy salle de salle surveillance fii mooy salle de garde woon nag man nekk naa si hôpital bi mais mosuma fa dugg kenn du fa dugg ñoom bu ñu fay dugg dafa am nu ñuy doxee parce que xale yi seen bopp dañ leen dañuy dañ dañ leen di protéger. salle néonat ñoom rek ñoo fay dugal ñaan ñi nga xam ne ñooy garde ak docteur bi mais ñoom duñu tëju ci biir salle bi xale yi bu ñu leen fajee ba dañuy génn parce que xale yooyu maanaam euh, il faut que nit ñi comprendre néonat nu muy doxee mais ñoom ci salle de garde bi la ñuy nekk ay vitre la dañuy jàkkaaloo xale yi voilà am na vitre dañuy jàkkaarloo xale yi nii mais lu ni buum xam nga lu buum explosé gaz comme ni ah bokkul ak luy takk nii di dem mbar ndànk nga koy fay xam lu ni bum explosé courant bi coupé xam na wax chaleur bi jóg loolu bokkul ak loo xamante ni day takk par ndànk ngay dem wuti ndox wala kii ñoo ngi fa woon mais mënuñu ci dara même sapeur pompier bu fa ñëwoon lim ci mën du bëri parce que dañuy buum jël ay affaire saxaar si jug bu ñuul kuk foog nit ñu comprendre noonu la newoon nag di doxee day am salle de soins am salle de surveillance xam na wax ak salle de garde ñoom nag ñu ngi fa taxaw bu mu nee buum ñoom ñaar lañu woon. mais dama lay wax benn affaire ñiy nekk sax di wax ñëpp ku sa kër gaz bi ni buum da ngay ci fenêtre bi ngay jaar lal yi ak sàkkantuma ay jigéen ay jigéen yu toll ni yow nii wala nga mag leen tuuti mu mel ni bomb bu éclaté ak ku mënti doon da ngay lal yi daw ngay def après sax ngay xalaat ni da ngaa war a dellu kon ay nekk nañ fa ak ay nekku fa loolu du wax ji wax ji mooy <clears throat> lan lañu xoolee ba foofu tàkk. état moom defu fi dara su fi defoon hôpital bu moderne problème bi du am deuxièmement état day jéem a wut lu mu tegal opinion bi jox leen benn yax bu ñu seeñ ñu ne am na ñu ñuy jàpp ñu ngi jàpp nañu diw parce que am na ñoo xam ne pour ñoom comme ni nga waxee pour ñoom dafa way way dañoo bàyyi xale yi foofu te suñu leen fa bàyyi woon pare suñ fa neew mais ñoom lan lañu mën suñu buum exploser tàkk saxaar si ñëw ñoom da ngay dugg quoi après nga dee yow voilà ça wala leneen ak leneen. d'ailleurs sax dañuy profité aussi occasion parce que grève bi dañ ko arrêté pour permettre centenaire bi jàll ko semaine bi yëpp duñ grève pour centenaire bi xam day am mbooloo centenaire Seydi Hadji Malick si si Tivaouane day am mbooloo te mbooloo dafa laaj euh, santé. ministre de la santé aussi dañuy rafetlu taxawaayam parce que xam nga biñ ko nomee ak léegi.

pour que grève yi bañ a tar loolu aussi ñaan na fekk na sax moom avant muy ñaan loolu xalif général yebal na fi doomam ak maire dëkk bi ak euh, président conseil d' administration hôpital bi muy président du conseil département Seynabou Gaye Touré ak euh, le préfet ñu ñëwoon fi <coughs> ñaan ñu pour ñu wàññi grève yi parce que daanaka mbir mi bi mu amee ba léegi dañoo hôpital bi dañu wax dafa tëjoon quoi waaw donc comme baatu xalif bi dugg na ci ñun tamit mënuñu ko neenal moo taxoon ñu tegg suñu tànk euh, bu ñu daan grève euh, sept jour dañuy grève trois jour wala deux jours mais au début moom bi événement bi amee ba avant xalif bi di yónnee hôpital bi kenn liggéeyu fi quoi. impact incendie bi waaw sur le plan financier mi ngi impact bi surtout mi ngi jóge ci grève yi. crève yi su fekkee ni supposons yow da ngay lal sa table quoi par jour boo géddee ni doo lal xam nga la nga doon am doo ko am ah. pour impact psychologique impact de fréquentation de l'hôpital ça n'a pas changé tey jii nii boo doxantoo nga xool ay rang ñoo fa nekk service yëpp ngi fees del du hôpital bu ndaw de hôpital hôpital boo xam ne def quarante huit mille consultations def six mille accouchements hmm, par année trois cent accouchements par weer def lu toll ci ay cinq cent césariennes am douze spécialistes ak ay professeurs d'université une dizaine de services jëmm ji moo taaruwul carcasse bi rafetul mais contenu bi am na solo parce que ressources humaines de qualité la am euh, gis nga fi affaire bi am ñun ñëpp reconnaitre nañ ni ñun ñii di liggéey mooy meilleur service <coughs> ci hôpital bi mais aussi au niveau régional néonat Tivaouane moo jëloon paie au niveau national laa la wax de dañ ko boole woon ci quatre néonat yi gën a baax ci senegal service boobu noonu ñun ñëpp keroog bi ñuy wax service bu gën a baax dañu d'accord ni néonat la bu te pourtant ñi ko doon wax bokkuñu woon ak ñoom service quoi loolu mooy woon ni ñi mu dal. mooy personnel bi gën a engagé personnel bi gën a sérieux par yàlla def indi fa nattu bi quoi moo tax lu leen jàppee nii alors daf ñu metti parce que <clears throat> ñoom ñun ñëpp xam nañ mooy service bi gën a baax ci hôpital bi population yi bu ñu grévé ñoom ñoo ci gën a sonn mais dañ leen di bàyyi xel ak li sëriñ bi wax moo tax ngi def des grèves perle maanaam ay doon def par exemple mardi mercredi jeudi vendredi léegi dañuy def peut-être mardi mercredi rek bàyyi noonu su ko defee nit ñi nit ñi mën a ñëw bi ñu bi ñu grévé population yi noonu nañu mais fréquentation bi moom changé wul maintenant euh, li ñuy xalaat ci hôpital nu mu euh, hôpital tane tane bëri na de bien que ni mu war a mel melu ko mais nañ continuer dem audit bi def ko ci hôpital nekk Sénégal yëpp tu verras yéen Dakar ngeen dëkk daanaka yéen a nga dégg la fa am dem leen fan dem leen ci hôpitaux yi nekk euh, Pikine Dominique la tudd xawma ngeen xool mais maladie bi <laughs> du fii rek état mi ngi def li mi ngi def ay effort mais maanaam daal mbiru santé compliqué na <clears throat> ñiy liggéey ci santé est-ce que xool ngeen ñàkk est que ñu ngi leen di fay am na ci xale yi kenn kuñ jàpp stagiaire la quarante mille francs lay fayeeku <clears throat> di ngi nii ñu tëj ko ci quarante mille pendant des années am na ñu nekk fii ñuy fayeeku cinquante mille waaw mais loolu fépp la am ci hôpitaux Sénégal yëpp la am ay ñu yor ay ASC nañu xool mbir mi moo tax ñiy bañ a joxañ ni nekk ñu fa woon dañ doon TikTok nañu xool ñooñu est-ce que ñoom la leneen état war a yelloog ñoom est-ce que def nañ ko fii kan moo fii nekk fii di job pour ñu lay fay ay quarante mille ngay fanaan di yendu ba kaso fekk la si waaw loolu noonu mooy combat yi nga xamante ni ñu ngi koy mëne man bi ma ñëwee man maa yokk salaire yi ba ñuy fay léegi ay cent cinquante mille ak yooyu fexe naa ko ba ñu yokk salaire yi parce que dañ doon grève comme li nga wax takk ay brassard rouge loolu def nañ ko quoi mais dafa des loolu noonu def nañ ko ak direction bees bi ba ñu am ay yokk salaire yi mais dafa des parce que dafa dañu bëri te tëtu ñëpp la concerné quand même parce que am na ñoo xam ne ay fonctionnaire lañ quoi ñoom salaire normal la ñu am mais ñi nga xamante ne hôpital bi moo leen di jël xale yi nga xam dañuy génn def seen formation ñëw ñu jël leen stage benn at ñaari at après ñu commencé leen fay ñooñu ñu ngi ciy def ay jéego ba am na lu ñu yokk mais ñu ci ëpp ba léegi ñu ngi am ci salaire yooyu xeex la boo xamante ne nii ku daan déglu hôpital Maam Abdou da dégg ñu ci wax quoi li nga wax noonu nag euh, loolu mooy rôle syndicat moo tax alors ñun ñu sonn ci combat bi avant sax lii di am ñun loolu moo nekkoon suñu plateforme revendicative su ma la ko joxoon di nga ko si gis. mooy point yi jiitu euh, xam nga par exemple hôpital dafa am autonomie de gestion financière hôpital mën na jël bokkul ak fonctionnaire bi nga xam ne nii euh, moom état moo ko jël bokkul ak si ak ki nga xam ministère de la santé mais hôpital moom am na sañ-sañu embauché comme li ngay wax nii parce que dafa am ay jafe-jafe ah pour que syndicat yi santé yi ànd gis nga enseignants yi comme li ngay wax nii ñoom bi ñu demee ba nga xamante ni dañu tasaaroo dañu dem créer seen benn G20 maanaam groupe des vingt syndicalistes def benn kuréel di waxandoo di dóorandoo ñu régler seen problème mais loolu amagul ci santé parce que ñi ko jiite ñoo juboowul ñi ko jiite santé Sénégal euh, SUTSAS moo fi nekk euh, Sintras ak 3S SUTSAS Mballo Dia Sintras Jomane euh, 3 F F2S Cheikh Seck ñoom ñett ànduñu ànduñu. waaw bon dernier incendie bi <laughs> dernier incendie bi xam naa bi nga ko déggee ñëpp na ngeen waa lii lu mu waa mais nag du woon incendie quand même benn la woon ko xam nga incendie moom mooy loo xamante ni dem na ba mat mais quoi waaw début d'incendie la euh, day prouver rek installation yi baaxul te loolu waa waa COSIEL ñoo ko wax euh, beneen bi gis nga début d'incendie mooy indi incendie xam nga maanaam Ibrahima Almet boo ko kasetee est que xam nga mun na taal daay brin almet ngay naan ni attaay brin almet boobu mën naa taal daay pourtant yaa ngi ko téye nii de mais est-ce que boo ko tegee fuy tàkk wala nga teg ko ci gaz walla nga teg ko ci essence xam nga mu tàkk loolu nag moo fi amoon parce que court-circuit encore mais heureusement ba bon. déjà loolu problème la parce que. Euh, fi mu toll nii ce n'est plus fiable quoi maanaam too même yow booy <laughs> branché ak foo mën mënti nekk da ngay xaw a am benn réflexe est-ce que fii ni du du daa am court-circuit électrique bi franchement ça pose problème ba ci leen installation même canevas de de, de des égouts égouts yi par exemple il nous arrive des fois mu am fu fatt bouché euh, beaucoup de choses dernier mot c'est que nañu libéré ñi ñu jàpp parce que defuñu dara. ñun chaque jour nañu takk brassard rouge après euh, centenaire Seydi Hadji Malick Sy bi dañu continuer grève dañu continuer grève pour que ñu libéré ñooñu defuñu dara dara lañ deful. Euh, di ñu demander l'État mu ñëw defaraat hôpital bi tabax fi hôpital bi beex comme ni ñu ko proposé woon loolu mooy li nga xamante ñun mooy suñu souhait. ñu ñëw réhabilité waat hôpital bi defaraat branchement bi defaraat yu bëri en attendant li ñu wax ni dañ fiy tabax hôpital bu bees bu moderne comme yi am ci yeneen dëkk yi loolu tamit ñu def ko parce que Tivaouane dëkku Seydi Hadji Malick ay kilifa ñoo fi nekk dañoo mérité hôpital yi am ci yeneen dëkk yi yi ko état def def état tabax na ñeenti hôpital tabax na Touba tabax na kafrin tabax na kéedugu tabax na aussi euh, Sédhiou waaw loolu mooy en pour pourquoi pas Tivaouane voilà donc man la Sidi Lamine Ndoye le secrétaire général du SUTSAS chargé de communication comité de veille en même temps aussi le représentant du personnel au conseil d'administration de l'hôpital Mamadou Aziz Dabakh de Tivaouane merci